taxaw la grand champion grand champion nuyu naa la te nga présenté wu. mais ñu ngi sant yàlla julli ci yonent ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant suñu di sant Pikine bi ñu jógee waaw dëgg na. te àggagul fuñ xam nga léegi tuuti sa dafa xaw a doy waar quoi parce que amoon naa tuuti ci ginnaaw ay tolof tolof. mais yàlla suñu borom suturaal dañu quoi ndax bu dee danga yaakaar da ngaa yéeg te yéegoo te ñun yéeguñu yéegoo guñu woon quoi mais léegi yàlla dimbal nañu am nañ ay borom xalaat ak borom xam-xam yi ñu ngi toog di waxtaan a ñun franchement parlé. waaw sama sa dernier combat nga nga nga premier combat maa ngi bëri Félix Mendy daan ko deuxième combat maag Euro troisième la Lastander. teg la naa cinq victoire ah si laa ñëwee après Tafa Ziñoo daan ma. waaw gars yi non non xam nga loolu may yàlla la rek. xam nga làmb dafa baaxoo noonu. parce que lu may faral di wax rek comme sama mbokku mbëri ak suñu génération bi. dama ne bu fekkee da ngaa am tur te amoo xaalis da ngaa am problème te làmb dafa nekk loo xam ne dafa doy waar yàlla suñu borom nag moo yore lu ko neex daal lay yàlla di def daal mais sam ñun ñu ngi santaat yàlla comme yàlla may nit bu ñu jógewaat ci victoire rek ñu ngi santaat yàlla parce que ba ma ñëwaatee ba léegi ne yàlla mu may suturaal def naa ci quatre komba am naa si ñaari victoire ak ñaari défaite te amaat naa combat fu mu toll nii. Hmm. waaw dafa metti woon nag. parce que damaa jóge ci comme maag bu kaw dama ko jël pour wan ni nit ñi man champion laa. parce que damaa jóge ci combat def erreur ñu daan ma fukki jeunesse. mais ba ma ñëwaatee yàlla suñu borom mu joxaan ma koo xam ne moo gën a diis sax ma daan. mu dëkk Kaolack doon champion daan ay Tafa Gueye dégg ma ñëw daan ko. instant ma xëyaat ñu joxaan ma boucher. xam

da nga waxoon ni yaa ëpp gàllaaj yaa ëpp xaalis yaa dàq bëri léegi ngir yàlla war a suur le 28 mai la ni ko waxal promoteur mu régulariser ko man moom xamalu ma am petit Boucher xamalu ma së waaw xam nga Boucher lu ma sëkk moom jàpp la duma la duma yu met wool Balla Gaye wool Sa Thiès ak wool koo yaakaar boo moom borom kàngul boobu sax nga yaakaar indi ko nga xool fii yàlla rek moo fi nekk maa la maa la mën avec le tour Boucher man maa la mën avec le aw ma lu ma si jaaxaan non xam nga may problème bi xam nga tey ji boo nekkee sa kër di def say affaire comédie ngay lekk say pomme da nga am volume mais yàlla xam nañ ak yonentu Bousse maa xam non Bousse Bousse wax wax wax rek lañ sëg wax non déggoo li ma la man mbër laa alaaji mbay mbër la mais man sam bopp laa xam man man moom mbër laa te xam naa ne xamu Bousse lan lam Bousse Bousse wax rek lam barki Seydina Mohamed non d'accorduma lool dañoo ànd ak Ziza seetaan ko seetaan buuse benn combat am boobu mu bëree buuse bëri na ak Esmar sama benn copain Iba Mar Esmar daan ko waaw mu voyage nag dem tukki génn ci làmb ji ba heure bu ko neex xam nga pata ak kuy liggéey am doole bokkul quoi moom daa pata di noos di ànd ak gars yi non mënu ko yëngal day noos non mbëru noos kat la lu leer laa la wax day noos waaw te ñun dañuy yéeg si dini yéeg si dini di sëfoo lu metti xam nga kii day liggéey lu métti di ànd ak ñoom jaraad di daj lu métti si saal yeeg di nii buuse day ànd ak gars yi di noos di dem si fast food yeeg affaire yooyu di yenu weñ tuuti di yëkkati tuuti waaw ko yar xëcc rek la mën la mën non non gëmuma ko de xalaatuma ko sax non sama buuse samay moroom mu ngi fi xaw a gars yi fu mu dal man tollootuma lamb fu may laajee kenn parce que fi non ñaan sama rak la xam nga ñaa maa koy antenne quoi wax deug yalla ñaan ñoo koy antenne mu doon boy buñu deggal tamit quoi koku mom mën naa wax ni làmm mënuma bolé mom quoi wax deug yalla parce que suma rak la ñaan ñoo ko njëkk yóbbu muy yëkkati poir moo tax suy bëre ñun waa pikini dañuy dem diko jappalé suñu rak la nak waaw tay duñ mësa bëre mom suñu rak la té xam ñu ngi koy ñaanal yalla suñu mom defal ko jamm mais à part mom mom ñëpp lay bëreel quoi wax deug yalla dëgg yàlla ñëpp lay bëreel parce que man mom pikine rek la fi baye ak booy ñaabu ndaw moom nga xam ne suñu gaan ak sama benn rax quoi booy plateau palaato moom sama rax la te ñoo fuñ juddoo quoi tamit waaw léegi dañu nga wax këccëb jëlal sa këccëb rek nga téye xam naa ne man moom billaahi wallaahi laazim fekk lu yàlla maye jeexul dinaa la duma dumay métti wool Balla Gaye ak Sa Thiès ñëpp laa si yamale si dama fa non bu bu sa waajoo ji kàngul bi woo ñoom ñëpp ñu ñëw mais nag maa ngi lancé benn message tamit quoi ñun Sénégal jàmm rek lañ xam quoi nañ gën a woote jàmm quoi affaire yu taal pono ay xeex ak histoire yëpp xam nga mun naa ñaaw quoi mun nañ ko lijjanti ci normal ñu xam fu dëgg bi feeñ Macky Sall yow la ñuy gën a ñaan Sénégal na gën a amaat jàmm quoi parce que lii ñuy def nii du suñu du suñu parce que Sénégal dafa changé ñuy jàpp kilifa diine yi di saaga mun ngeen lijjanti seen problème mais bu leen saaga suñu kilifa tamit parce que wax tamit xam ñu wax rafetal mais pas ay saago quoi li ñuy def noonu man loolu moom lu may gën a ñaawlu la boo waxee ñu ne ñun kenn corompo amul kenn ku ñuy jox fikki parce que soxlawuñu fikki dërëmu kenn soxlawuñu fikki amul benn politicien bu ñëw ne jox nañu fikki dërëm mais lu ñu bëgg mooy jàmm ñu ngi koy ñaan ci yàlla ak yonent bi barke weeru koor gi ñuy dugg yàlla na suñu borom wàccee jàmm ci lépp quoi ñu bàyyi xeex beeg histoire beeg yooyu parce que quoi parce que bi osan yi osaay ñoy dimbali néew doole parce que néew doole bo yare ben ki di nga mëna dem jënd ji Auchan am nañ fi njëriñ station yi bo leen ko yàqee ni tamit amul sens quoi di nga ñaan yalla war a suuli jàmm quoi han ah. ba borom ba ba ay sàcc ci duggu man luma ma ne nëbbatu ma mo wax li ñi def ni bu ko continuer yeen pour yeen ni ngeen def da ngeen ci gagné sunko ngeen ni yàqal sunko rek ngeen ni yàqal de sunko kasse ngeen fi yàqal parce que Macky Sall du xey muk di manquer essence sunko du xey muk di manquer essence dañ waxante deug lu ñuy def nii amul benn sens agresseurs yi topp ci dugg ci lu ne ñu koy def loolu dafa war a deñ nag dafa war a deñ quoi. maa euh, message bi sa waay lancé message waaw waaw loolu mooy àdduna quoi Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg rek parce que yi ñuy def yëpp tamit amul sens tamit quoi. Hmm. xam nga nguur moom fal ak falu rek falu bu jeexee keneen dem keneen ñëw loolu rek mooy àdduna mais nañ ko rafetal rek ñu àndu booloo kenn ku nekk yaa sa carte booy voté nga votel ki nga war a votel hmm. bu ñu gañee mu jeex mu jeex mais xam nga ay dugg say osan ay xeex ay gaañoo daf si am ñoo xamante ne à tout moment ñoom rek ñoo siy gaañu ah. ñoom nag bu ñu xoolee ci loolu war war nañu moytu kenn ku nekk di rawale sa rax wala rawale sa doom noonu la demee quoi Sénégal daal yàlla na fi jaamu yàgg quoi maa ngi maa ngi sant kii parce que gis naa lu ñuy def quoi di jàppale jeunesse bi mais bëgguñu ko tudd seen tur man man dinaa tudd seen tur Idi Kale ñu ngi koy sant bu baax ak may ak ak Amadou Amadou mooy doomu Macky Sall ku baax la parce que keroog toog nañ ñuy waxtaan ci affaire jeunesse bi mais musuma gis nit ku oyofee nii ndax ñun buñ ko xamee yàlla ak Seydou Fall moo tax ñu ngi koy sant bu baax parce que gis nañ taxawaay bi waaw gis nañ taxawaay bi ñu ngi lay sant bu baax Amadou ñun nag defaloo ñu fikki dërëm mais dañuy wax te suñu àq laay taala parce que Sénégal boo waxee ñu ne noonu dañ la korom Amadou Kow du ma ko gis mu ñëw Pikine ñu toog waxtaan mu dugg ci koñ yi di xool ko loolu ñu ngi la ciy sant li ngay def nag gën a la kon di nga wàccee si terrain bi noonu loolay àdduna parce que di nga xam ñi nga xam ne mooy loolu mais ñu ngi lay sant bu baax yoo Amadou Sall Amadou Sall ñu ngi lay santaat di la santaat yaa ngi Idi Kale menace mais mun a ak Seydou Fall quoi ñu ngi sant staff boobu bu baax. waaw mais te jii nii pour nga dégg-dégg Macky Sall war naa mën a woo Sonko parce que Sonko raxam la parce que Macky Sall moo ko jiitu ci kii Macky moo ko war a mën a wax fu muy mais tey jii sénégalais bu fekkee Macky Sall mu woo Sonko da ngay génn parce que ñu topp ci ginnaaw Sonko. ñu sonkoo jege Macky Sall ñu nekk si ginnaaw Macky Sall bëgguñu ñu jege Sonko loo tax Sénégal du gaaw a dem il faut ñu toog ñu waxtaanee lii parce que Sonko gisuma problème am Macky Sall gisuma problème am Macky Sall ku ne liggéeyul da dëgg la ñuy wax ku ne dañuy fenn man ànduma ak moom ànduma ak mais ku ne Macky Sall liggéeyul rek waxoo li am il faut que ñu jéem a toog ñu waxtaan yàlla na suñu borom def ba ñoom ñëpp toog ñu waxtaan ndax jàmm mën a am quoi gars yi suñu mbokk mbëri ñuy wax nervi yi génn leen ci yi ngeen di dugg